doon ma xam li ma doon mm. xam naa sama poids peese naa sama bopp man yëfu manquant yi nga ma def ci bopp kon bi bugguma ko waroo ma taxaw loo ma taxaw bàyyi sama yitte ngay def ay affaires yoo xam xamante ne man duma ànd ak góor gu ragal ba nga xamee ne dangaa ragal ñeme woo amoo fit capable oo oo waroo moom song ndax man xale yu capable yee may wër yaa ngi moo taxoon man bëgguma doxaan ci koñ bi parce que sama niveau da leen dépassé man sama niveau man sama niveau moo lii moo taxoon saa bu may doxaan damay jël avion dem ay Londres ñoo ñoo ma attan intellectuel yooyu te damay dugg nag ci université yi ñi def droit xam lan mooy science parce que samay moom moo diis mën naa la wax dara nga yaakaar dama la wax fekk waxuma la dama ni pat fekk yaa may dégg wax fekk waxuma dama ma lay wax ne la borom certificat borom bac plus yi nga taxawal. ba tax na nag dama lay wax benn affaire man aw daw ma ci sala yaay ndeex. loolu nga daw di. dama lay expliquer loolu nga def déglu ma rek cencoo. non non yow yaa cencul déglu ma non yow boo xoolee. nu ma doxal sexal laa def booy boobu booy boobu dama ko sexal xool dama ko sexal parce que booy bi kër ga la ñëw sëñ beek fa yabal pour muy observer di xool di ma jéem a coytu mais booy bi dama ko tëgg wëndeel déggoo ma de flip flap laa def booy bi dafa yaakaar ne fee laay jaar ma jaaree nële. xam pour lan pour boo ñëwee ci kër gi mu xam yaay kan maa ko da exprès doon peese booy booy boobu sama sëriñ moo ko fi yabal mais du ma ko ñàkkee kersa mu naan sama sëriñ nii ak nii la demee. ni nga ko defee moo rafetul da ngaa dëgglu sa bopp da ngaa daw. kan moo daw yow xanaa. lu sama yoon ci gaynde gu puudaru teg ay xefam man dama lijjanti loolu dama ne la dafa am loo xam ne boo ko mënul bu ko songu fas naaru góor daal du dawandoog mbayaal ba nga xamante ni daal bokkoo ci fas yu mag yi demal nga toog man xale yu mag yee may dëkk yow lii lan la. kan man mii man bu ma doon aliment. finition la xool ma ci kaw bi du ma démarrage déglu ma ma wax la nag benn affaire wuy ma wuy ma fii ma wax la. fekk nga fi Tesla. Ah. man damaa romb oto yii nii. man maa ngi ci électronique déglu ma ma wax la. <laughs> sama moteur moo silencieux damaa bëgg nga ànd ak teg tey ma la yëkkati la ca kaw. Hmm. ngay fly déggoo ma de ba tax na ulama yu ci baree bare damaa bëgg ngay xàmmee ñoom lanu jëfe ndax boo xoolee. dem nañu ba ci biir ñu xam ne bu ñu xeexee ak mhm. amul la njëriñ xeex ba ma nga nekk ci seen i jikko ak seen i xol ci la ñu wëlbatiku mhm. daal di def régression mhm. delluwaat toog ñoom seen biir ñoom ulamaa yi waxtaane ko càmbar ko looloo waral jaaji may waxtaan ak moom ci ñoo ñooñu nga xamante ne tey mi ngi ma ñëwoon dikkal ma ci maanaam jihaad man ka jihaad fi nafs moo am jamono ji jihaad yi nga xamante ni ñoo amoon ay épée moom la ma doon laaj ndax am na ci ay xaddis yu bari yoo xam ne ñu ngi werante ba tey ndegam dafa war a nekk en vogue man ko noonu loolu amatul c'est fini mm-hmm. kal bu nii tamit war nañ si wax kalbun la ci wàllu jixaat yi tax na xam nga booy jixaat yi dafa laaj nga ànd ak ay kalbun <laughs> parce que danay encouragé gis nga dama lay wax dara gis nga Cheikh Anta Diop mi defar quatre-vingt-quatorze seize carbone hmm. nga xam ne day tiim yax nit vingt ans cent ans soixante-dix ans cent ans mille ans ni yax bi yaxu kan la ak fu mu jóge kooku sa maamam ak sama maam ñoo daan ànd ma doon nag 94 nii dama naan jàq ni rek xool la mu doon wax xam mu doon wax mais génnal ci loolu nga ne da toog toogal toogal daa mel ku sol baat bato nii laay jaar ba boo ñëw fii doo ma vocal wala nga taal sa GPS man sama satellite kër yi nii tiim ma. damaa ñëw ba may ñëwee dugg xam ne nekkoo fi dama doon génn moo ma woowaat. ama sa bopp xam sa taxawaay kat. naa sama personnage te xam naa sama dijj ànduma ak benn mankankan. loola la waaw sa digganteeg moom daal def ci nànk. ci la bàyyi loo def dugg ci. bàyyi loo gis dugg ci. bàyyi loo gis dugg ci. doo cag-cag. doo cag-cag ba lu la livré rek nga daw. lu wax ju ñaaw jooju ngay wax baal ay rëy ay wax weer koor la ñu am na lu xeeñ léegi am na lu ngeen fi bàyyi lu xeeñ am na lu ngeen fi bàyyi lu xew. man dama tiita tiit man tiit naa ci mim réewoo waaroo ëppale mbaaraw kenn fi moom jóg naa dem ci sëriñ gi yàq la xiif naa mbaa musul foog ni yowa yàlla buy taaw ngay fo saa doole moo ci jeex noppi na ba pare si di yëngal waa maa koy yëngal fépp laa mën ne awa yëngal kii Ndaya ça va ñukku waaw ça va ça va bien yaa ngi xam nga ne foo génn dama lay topp xam nga ne Ndakaaru Njaay daa bëri góor te ay goor yu bon yu agressif ñoo fi nekk ñoo fi xaw a agressif naa li ma la wax waa Ndakaaru Njaay bu bëree góor lu sama yoon ma ah, ñu ko yow da am beauté bu baax <laughs> ça va yaa ngi cool yaa ngi am jàmm non Naaya yaa ngi toj dëkk bi fu mu toll sa xeetu beauté sa teey sa am classe sa bel say ans ah <laughs> Naaya dama lay décortiquer nag ma ñu ko non Naaya da mool nag da nga mool de kër yaa fi gën a mool ah? fii yaa fi sunu yaay yaa fi sunu papa am na leen loo xam ne bëgg naa la ko wax sax yaa ngi ravigoté sama àdduna je t'aime comme une comme une kii maa gerte je t'aime I love you Naya je t'aime je t'aime je t'aime tellement damaa jeex sax sama mbëggeel fu mu toll nii gisoo ni ma woowee nii xanaa fan yi mbëggeel may bëgg a rey naan man nag liggéeyu kër gi moo la jeexal. non du kii bi de kii moo may moo may bëgg bi ma la bëgg moo may jàpp di ma rongé di ma roje je t'aime. ma ñu noppil. yow ko yow kafoo. billaay kaf ma. ma ñu ko gisee nga cuuj day xam lekkam man damaa bëgg ko xam boppam yow xool nga ma. moo tax ma wax la ko. gis nga ma est-ce que. nga taxaw naan danga may jéem a doxaan. yow en tant que femme bu mel ni man. Ah, yow samay boutique yow samay oto. om d'affaires bu bëri wax. moom nga jàkkaarloo moom laay tegal nii de. juum rek ndax juum ndax juum <laughs> ndax juum baax ko. que ça soit nag la première et la dernière ma romb la di dox farata nga may woo ci sëy yu matati yi nga may saf si romante nii. si romante baate nga trop. nee ko da ngaa jiw waxoo ko waxoo ko waxoo ko balaa dem nee ko <laughs>